mu ñew téwal fi sëñ Moustapha Abdoulla Karam ci li nga xamné dal na ci kaw njabotam euh, sëñ bi ñu ngi lay wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu mbolom fi yépp di sant yalla bu baax di julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam di sant Serigne Touba Khadim Rasoul di yëkëti suñu kaddu ci turu Serigne Mohamedou Moustapha al Abdul Akram nga xam ne kilifa gox bi ñu nek yàlla dafa dogal bi xew-xew bii am mu fekk ko ca toolam yële ñuy wax Daaru Salaam biñ ko ko waxee fa saasa ci la daal di woote woo préfet bu Diourbel mu joxe ndigal sappoor ñëw oto baa taxaw ñu nekk ci yàlla def na ci tawfeex fi mu nekk nii mel na ne fi mu nekk nii arrêté na waaye nag mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci taxawaay bi nga xam ne ànd nañ ñoom ñëpp ñëw wallu si leen lépp ñu def ko ngir yàlla ak jëmmi dëkkandoo mu muy wax ne itam lii dañ ko jàppe nattu rek nattu moom nit ku baax rek la dal alxuraan nee na wala nablu wannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsin min al amwali wal anfus wa thamaraati wa bashir saabiriin suñu borom dana leen nattu ci tiitaange tiitaange mën na di mën na dikke doomu aadama nu ne min al xawfi wal juu'i ak ab xiif wa naqsin min al amwal ak wañi sen alal wal anfus ak ay bakkan manam ay nit ñuy faatu was samarat yépp Wa'e man am man nañu wax ni amna fi waye lolu bu amé néna wa bashiru saabirin incha ñi nga xamné lolu dal na leen tañ muñ ko suñ borom dana leen bëggal mektam suñ borom nak yaakar na na mo dakhlé kon sëñ baa ngi di massaw bu baax di wane ne rek mbir yu melni mom du mëna ñak ci ci ci ci ci ab julit loolu rek moy sabab bi waye nak mi ngi ñaan yalla suñu borom mi nga xamne moko dogal mu wutal fi lu ko gën ci ñom ta yalla do ta yalla def itam mu yobale seeni ay mboolem lu leen naron dal yalla na yalla dak bolé ko li nga xamne dal na seen kaw mu ngi sant ñep di gërëm ñep di nuyu monsieur le maire bu baax di massaw mom itam ndax lu mel bu dalé ci ab gox kay maire ba faaw ñu. masawu ko moom itam ndax ci sa njaboot la def ñu ngi sant